sëñ Abibou Diop mii xam na ki dara santaana ñuy jàng ay kaamil ci ay pénc di teral nit ñi ngir ñaan suñu borom def ci réew mi jàmm kon mbokk képp koo xamante ne nii taalibe murit nga képp koo xamante ni ki njaboot ak sëñ Saaliwu yu mel nii bu xewee war ngay sàkk sarax war ngay ñaan di ñaanlu ngir suñu borom def mébétum sëñ Saaliwu moomu ndegam nag lottu nga xëy na ci ñaan ak ñaan la waaye nga yar sa bopp yar sa jëmm ba lépp loo xamante ne nii day indi ay coow ak i rëng-rëng yow yoo kenn bañ la caa dégg kenn bañ la caa séen ngir loolu nga màggale ko fàttali ko ko suñ jàmbaar gi tedd ji ñuy fàttaliku muy muy muy muy muy sëñ Saliou Mbacke ndax sëñ Saliou Mbacke kat moom kenn mës xam soxlaam ndax Abdoulaye Wade mi nga xamante ne sëñ Saliou ko defal lépp keroog ba mu faloo ba ñëw ci moom ne ko sëñ bi dama ñëw di la sant si te tey bëgg xam sa soxla ndax li may doxale réew mi nga wax man nan nga jàpp ne noonu moo ci gëm noonu moo ci gën ngir réew mi aw yoon sëñ bi ne ko man de benn soxla rek benn benn soxla rek laa am mooy Sénégal gi nekk réewum lay loolu ñu dindi ko ci constitution bi mu bañ a amati. Hmm. kon kooku soxlaam soxla si ñëpp la soxla si jullit ñëpp la. président Ablaye Wade tamit daf ci yéene dem Ndakaaru wax ko xam nga fay Ablaye Wade moom dafa kii la woon nu mu tuddati libéral la woon lu mu xalaat rek dafay wax. pression yi nag jógee fu nekk ci àdduna bi nga xam nga Sénégal ni mu toll ci àdduna bi xupp yéeg tubaab yeeg coow yëpp bam mu dellu si sëñ bi xamal ko sëñ bi ne ko yéene woon naa ko day waaye nag nangam ak nangam ak nangam ndax booba xam naa ne àdduna bi ni mu bindoo xamal ko ne tamit loolu xam nga suñu réew yi loolu mënu fi am sëñ bi ne ko ah sàlla Mauritanie day ñun ak ñu luñ France ak ñu bokkat yi te foofu da lay si de amu foofu sëñ bi moom xam na ne loolu mën naa nekk <laughs> waaye rek sëñ bi teg mooy kon de bu loolu jàllee ndax nee na suñ sëñ bi daf ne moom suñ borom lépp lu war a am dina ko amal doomu aadama bi sëñ bi da ko daan wax day ñaan suñu borom te di ko sant ci diggante boobu rek la war di baagante waaye wërta xalam ak sabablu lépp mbir mu ma gis rek ñoom ñu baax ñooñu ñu bëgg ko rek mu am gàllankoor rek xamal bañ ko bëggee rek borom dana ko def waaye nag ñoom ñaare dañoo xam-xam dañoo xam sañ-sañu suñu borom ba duñ sàññaa fa ci yenn yi kon ñu rafet ci njort na mën naa am ëllëg mu ñëw waaye sëñ bi lam ko teg mooy ginnaaw loolu jàlle da bëgg naa ñu xam ne diggante Mbàkke ak Bakel da ci réew mi lañu bokk ñu fàttaliku leen loolu lan ma ki njëriñam diggante Mbàkke ak Bakel ci réew mi lañ bokk bëgg naa fàttaliku leen loolu mooy àll bi nga xamante ne nii jàppoon nañ na jàppoon na Sénégal Ndakaar ak ak Ndar rek la yam waaye sëñ moom gis nga fam gisee xam naa ne moo tax président Abdoulaye tamit loolu nañ ko ci sant ndax gis nañu tamit lim def Fuuta ak lim def ci àll yooyu yëpp def na fi ay ay projets yu mag a mag xam naa wax jege tamit doon na ki dara booba tamit ba léegi loolu mi ngi dox ci eh, réew mi eh, eh, kon xam nañ ne sëñ bi moom réew mi rek ko ñoral kon tamit ndegam ñun ñoo bokk réew mi te ñu ëpp ci réew mi ndaw ñi dañoo jublu sëñ Saliou bëgg ko kon war nañ leen a fàttaliku nag moom yenn responsabilité la ban ci réew mi sëñ Saliou bëgg na réew mi bëgg koo xamante ne li ma wax léegi sàkk sarax ñaan ak lépp loo xamante ni mas naa yëngu ci réew mi poosam moo ciy jiitu gis nga fàttali yéen a ngi fàttaliku lakk gawañ ko Sonacos yéen a ngi fàttaliku xëy yeneen xew-xew yeneen xew-xew lépp rek poosam moo ci jiitu kon bokk ñun ñi nga xam ne ay njabootam lañ ñu bàyyi xel loolu di fexe jàmm di am ci réew mi fexe fonk suñuy kilifa yi diine yi ñu am ndax sëñ bi kat kenn ku ne gis na résultat bi ko yàlla fayee li ko ko gërëm may day jaamu yàlla bokk na ci liggéey baax na ci waaye fonk ay kilifaam day li mu ko may bari na lool. kon bokk ndaw ñi nga xam ne dañuy xeeñtu sëñ Saliou ñoom tamit ñu fonk seeni kilifa. xam na seeni kilifa muy Cheikh Mahmoudul Muntaxa jàmm rek la ñuy yéene lu baax rek la yéene lu baax rek la ñu bëggal lépp lu muy def ci Touba ak di ko def ci réew mi ngir suñu njëriñal tey la ak suñu njëriñal ëllëg loolu daal xam naa ne cig cig cig cig cig cig cig euh, njàlbeen bu ko defee sañ affaire ñu barkeeloo loolu ba ñuy del si bu soobee yàlla jërëjëf euh, ndeysaan sëriñ Souhaïbou man dama doylu sax nit ñi ndax waxtu ma jàll waaye ni waroon waxtu wala ñett ndax Serigne Saliou li ko sëñ bi bu waxee ci njëlbeen gi mooy doon na ko xam ne bis ne mën nañu wax ci moom mooy kon bor boo xam ne mënuñu ko fay te naan ca loola sëriñ Bassirou ñu ngi koy ziyaare bu baax moom Serigne mbakki Mohamed moom itam yegg si na léegi ahibaalu xadim ñu ngi koy tatagal di ko dalal di ko ñaanal jàmm sëñ basiru Fall euh, di ci bég lool nag waaye di fàttali mbokk yi sëñ Sohaybu bu muy euh, dama laa fonk ñaari yoon ndax sama ñoo bokkoon kër Serigne Bassirou Cissé sama yu tedd ja ba muy sos daaraam ja ba mu koy sanc waaye itam sama mag ji baax ci Serigne Abdou Cissé du ma ko fàtte mukk moom la Serigne bi yónni woon bi mu may jël si moo ma jël si njaareem te ba mu may jël sax ñëw tàggu sama baay daa ñëw jël ma ne ma nañ dem sëñ bi la woo sama baay dem ba mbuur sama baay door a xam ne Serigne Saliou la àndal loolu moom maa ngi koy sant fu ma toll di ko ñaanal muy Serigne Abdou Cissé waaye nag di la santaat bu baax a baax Euh, xam naa bu bu wax ji gënoon gudd way yi gën fee yokk ndax kenn ku nekk am na loolu sëñ bi defal ci daara ji ni ko sëñ bi waxee léegi boo boo nekkee ci daara ji loo jëm man ko man la naan loo jéem man ko ndax sëñ bi daa jàngale nu ne am na ñoo xam ne bi ñu jógee ci lañ daan fooyee moom la sëñ bi dimbalee tey moom la ñuy yëngu di ko liggéey euh, man man naa ci wax dama fa daan nekk di ay weer yoo xam ne dama ko daan def fii de fer di toppandoo ay journaliste yoo xamante ni jamono yi ñu siiwal di leen toppandoo gars yi di ma reetaan may def journal moo tax ba ma njëkkee dem def journal ci Touba TV sëñ laa ma njëkk a ne ma bi ngay def journal joxe la moom sëñ Fall damaa tiit defe ne da nga ma def ba war a daaneel daal tëjee nag wooy wa xoromu maanaam ndekete sëñ Fallou Sèye Abdou Khadir mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy seetaan moom itam dafa maa wax ne ma booy def journal damay bëgg wooy wi li ngay tëjee dama koy bëgg a fekke euh, ubbil te tijjil ta baddil bunti àll yi afal bunti njëriñ yëpp biir bitti fekk nattu yi loola ak yooyu kàll yooyu da leen di neex lool mu doy waar lool waaye loo jëm ci sëñ bi rek ci daara ji daal koy sëñ bi am nay journaliste am na ay camera man am na lépp loo xamante sëñ Saliou rek daa mel ni su borom da sàkkal ko ko man mooy li sëñ Abib doon wax lu sëñ bi bëgg rek sëñ bi wutal na ko suñu borom wutal na ko ñoo xam ne mën nañ ko kon ñi ngi santaat bu waxtee gërëm waxtu yi moo xat sëñ Abibu waaye nag ma bàyyi xel ci ne sëñ Abibu Jóob mii am na daara joo xam ne taxawal na ko muy daara Serigne Saliou ci Touba Thiawène muy daara joo xamante ni day mel ne delluwaat ci daara sëriñ Saliou mooy daara ñuy jàngale alxuraan dafa jàngale xam yooyu nag la sëñ bi boole ci jenn daara ndax dañ daan jàng alxuraan ba noppi dem jàngi téere beneen ci feneen ndax daaw ñu bokk foo koy jànge waaye nag sëriñ bi def na moom jenn daara ji sëñ daara yaa ngi fi ñiy jàngale xam-xam ngi fi te doo génn daara ji mën a jàng alxuraan jàng xam-xam kon loolu daara jooju ni nga koy loo xel ñëpp moom itam ñu mel ni moom mel ni suñu laaj loo ñoom la nga xam ne ñoo taxawal ay daara waaye moom nag daaraam ji moom dafay nekk daara ju mat a bàyyi xel ndax day dellusiwaat ci sëriñ Saliou dellusiwaat ci sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana numéro téléphone am mooy 77 517 45 64 kon numéro bi incha allah dinañ ko wane noonu incha allah ngeen gis ko ndax dey suñu jëwriñ lépp loo xam ne taxaw na ci ñun yi faaw ñu siiwalal ko ko incha allahu taala euh, damay daal di joxaat nag bala ñoo tëj naa ne maa ngi ñaan ñi ma jàkkaar lool xam naa dana gàtt waaye tëj rek lay doon eh, su ko defee nag ñu door a tëj jataay bi sëñ Abibu eh, kaddu yi nga xam ne moom nga ciy dolliwaat rek soof ko ci mu nekk loo xam ne tëj lay doon. asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw moom man la ni wax ji moom tëju na fii ne ndax liñ bëgg mu feeñ ci sëriñ bi feeñ na eh, tuuti la waaye mm, doy na. ndax junj euh, doy na borom xel mm, ba tax na borom xel mu ne daa dina xam fi mu ne nii fi nga xam ni fi lañ jëm ndax sëriñ bi moom bu ñu ci doon waxtaan bi mel na man rek li ma li ma xam ci sëriñ bi mën naa ci wax naa ci waxtaan ba suba boo la sëriñ Sooy waxuma la sëriñ Sooy Joob mii nga xam ni moo ñu gën a féete ndaw ba noppi euh, am xel am xam-xam kenn ku nekk si ñi fi toog mën ngaa wax ci sëriñ bi loo xam ni euh, batax na kon liñ ci junj liñ ci jël lu mu tuuti doy na sëkk kon noo ngi sant ñëpp noo ngi sant sëñ Souhaïbou nag dama koy gën a sant ndax li ma koy gën a sant mooy ndigal li ma mujj jot ci sëriñ bi moo ma ko jox ndigal li ma sëriñ bi mujj jox moom ñi moo ma ko jox fekk na sëriñ bi wax na ma ko waxaat ma ko waaye yónni waa sëriñ Souhaïbou ci man mu ñëw feddle ko dama sëriñ bi nee na daara ji ak jàkka ji ñu ngi sa loxo nga xam ne daara ji ak jàkka ji la ma mujj a dénk loolu mooy sababu daara ji nga xam ne moom laa samp ba ko liggéey loolu mooy moo moo moo moo mooy sabab si ndax aw ma aw ma leen lu mën a def ludul wala lu ma war a def ludul li nga xam ne moom moom la ma bàttale no do am noonu la ko wax man sëriñ bi mi ngi lay mi ngi lay fàttale lim lim lim la joxoon muy daara ji ak jàkka nga xam ne yëpp a gis loxo jiite jàkka ji jàngale ci daara ji kon loolu mooy suñu ndigal loolu nag moom laa koy sant ndax moom ma ko mujj loolu ndigal laa mujj jot sëñ bi loolu bi mu amee ak bi bi demee gisaatuma fi sëñ bi bi kon loolu kooku moom waxtu moo ko gisee rek damay gis ne damay jàpp ne gis naa Serigne Saliou ndax màgg naa ko lu bari njëkkee naa ko fi lu bari waaye sunu borom taw feexal na na ko ba ndigal li ma mu jël Serigne moom ma ko jox kon dañ koy sant bu baax di ko ñaanal sunu borom may ko fa ndiw waaye suñu suñu wàjjiri moom moom moom kii maan la loolu kon moom loolu mbokk démb tey soog a ñëw jërëjëf jërëjëfati jërëjëf sëñ Cheikh eh, kaddu yi tënk yi ndax waxtu yi daa mel ni daa mat rek loo ci wala dolli rek waaw ah, jërëjëf sëñ Afe man kay dama doon jéemantu rek ñoom samay kilifa dañ fay nekk moom te lépp ñoom ñoo ko xam ñoo koy wax waaw dama leen sant ci boole gi ñu ci boole rek ngir ngir teete ñu ak wan ñu yoon rek ak yaatal ñu waaw li ñu jeexale moom mooy sëriñ bi moom daa def li mu war a def lépp ba wàcc la alxuraan waxoon ne yàlla mi ngi digli ak maandu te ak maandu booy lenn lu ne nga jox ko àqam kenn ku ne nga jox ko àqam loolu suñu changement bu mu duggee léegi ci dëkk bi réew mi adduna bi kenn ku ne ni la jox woon ak boo duggee ci biir nit ñi itam benn benn ci réew mi mbooloo yi tarixa yi kenn ku ne mu jox la sa àq ba nga defe na yow dong la féetal ba ñëwee ci donga yi itam li ñuy bari bari kenn xamul nuñ toll kenn ku ne sëriñ Saliou jox la sa àq ba da ngay da ngay fàttali ko bis ak guddi yoo xam ne da ngay xam ne yow dong yaa am ci moom mat googu nag waxuma la àq ji waaye kenn ku ne mu jox la sa àq ci wàllu jàngal la ba loo xamul ci mu jàng danga xam ne dogalu suñ borom la waaye desalu la ca dara lu ne daj na ko ci sunum jàng sab yar daj na ci lu ne nga xam ne mbooloo mi ni mu baree demee mënoon naa programme yi ñëpp waaye ginaa bi mu programme ba ñëpp yi li ci gën a yëm mooy day day day teqi par benn benn it kenn ku ne mu la jagleel sa orientation bopp di la jagleel sa yitte jum la jox ak bëggal gum la bëggal foo foo àgg nag lam ci jublu woon mooy kenn ku ne mat li nga doon fi mu la jëme woon nga xamal ko sa bopp ba ëllëg doone man sëñ bi nangam ci nangam laa ko jëlee waaye da ngay xam ne sa jagleelu bopp am nga sëñ bi koo xam nii loolu nag ba buñ ko dajalee mooy doon doole ji nga xam ne moom la dong yi mën a lënkalikoo ak ñi ànd ak moom mën a feeñal liggéeyam boobu loolu daal ñu ngi leen ci bàyyiloo xel bu baax a baax a baax noonu la matala woon digganteem ak boromam sëriñ bi daa mat matal loo diggante boromam ci wéetal yàlla man koo jaamu ak it gis yéene loola loola nga xam ne moom du doon nit koo xam ne day jëriñ boppam rek waaye gis nga sëñ bi ku mu gis noo mën a sant ko mën a doon yéene na la xam-xam bi mu am nga am ko yéene na la defaroo gi mu defaroo nga defar ko ba day mel ni mu sax moo la jur joxoon googu mu jox àq yëpp nag waa kër sëñ Tuubaa yi seexi sëñ Tuubaa yi taalibi murid yi daayira yi waa waa waa ñu féete ci xasida yi ñu féete ci alxuraan ñu féete ci xam-xam ñu féete ci liggéey ak liggéey ni mu ci doon tàggate doomu aadama ni mu ko ci doon dimbale nga xa ne njëriñ gi mu ko jëriñ ci boppam rek wax naa ko léegi loolu rek moom kenn mënu ko cee eh, nattale kon ñu ngi ñaan yàlla fayal ñu ko bu baax a baax dañu ko fayal fu mu toll te liggéeyam boobee suñu borom gën koo lawal gën a dimbale ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk ci anam guñ ko guñ ci mën a jàppe bañ agale ko fa ba njort asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Cheikh béggaat nañ lool i ma la ñaan suñu borom defal la ni nga waxee ci jëlbeen gi rek ni nga ko waxee mooy Eh, ihmal li dunyaaka kaan naka taxiisu abada wa ahmal li axiratika kaan naka tamut xada wala liggéeyal adduna aha eh, sa adduna wala liggéeyal alaxira nga xam day mel da ngay dund faaw waaye mel ni ne ëllëg wala léegi rek nga fi jógee loolu lépp njëlbeen gi indi na ko ci Serigne Salih eh, mu mel ni xam naa Serigne bu am na kaddu yoo xam ne moom ngay tëj tey day am solo lool su ko defee ñu ñëwaat ci rek ba noppi door a ñëw ci Serigne Cheikh kon mu mu ñaanal ñu incha allahu taala waa bisimilah. waaw jërëjëf Cheikh Afia ñu ngi lay sant bu baax yow tamit. Mhm. xam nañ la bu yàgg yàgg yàgg ci njaareem. ndeysaan ndeysaan. njëkk sa ñëw sëriñ bi. wallahi wallahi. ba sëriñ bi daan ganasi cofeel goo amoon sëriñ bi sëriñ bi am cofeel googu ci yow. wallahi wallahi. ba tax mu sàkku am na ñoo xamante ne ni seen i waajur leen jël yox leen sëriñ bi. waaye yow sëriñ bi ci boppam moo sàkku sax ñëw ci moom ndax sax bëgg xasida sa yàgg jàng xasida yu neex di ci bégal di ci bégal sëriñ bi booba léegi nag sa dara génn sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di sëñ Balla Diakhara ñu koy yóbbante am nuyoo ci sëriñ Cheikh moom sëñ Saliou mm-hmm, mm-hmm. nga xamante ne nii mooy jataayub ka mooy kilifa jataayub ka sëñ Saliou mm-hmm, te jamono ji dafa nekk jamono joo xamante ne nii am kilifa neex na am kilifa naqari na ndax jamono gi daa ubbeeku léegi ku ne sañ a wax ku ne sañ a bind ku ne sañ a coow waaye am kilifa goo xamante ni lu wax ji bëri bëri bëri bëri bëri mhm. boo tëddee di nga nelaw lu coow li bëri bëri boo tuddee da nelaw ndax moom liñ ko mën a waxal rek mooy jaamu yàlla ak liggéey jaamu yàlla ci jëmi boppam mhm. toggoo ci coono yi metti mhm. Mm-hmm. waaye liggéey alalam tamit lam cay am mu delluwaat ko ci suñu borom delluwaat ko ci daaray mm-hmm. ci ay jàkka mm-hmm. delluwaat ko ci ay juma delluwaat ko tamit ci dundal ay jàkka ay juma kon loolu ku ko am ci jamono ji doy na doy na sant yàlla bokk na ci cër yoo xamante ne suñu borom moo koy maye tañ may nañu ko ñun waa kër sëñ may ko tamit may ñu ko tamit ci njaboot ak sëñ Saliou yëpp alhamdulilah kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom gën ko fee yàggal amiin amiin gën a mottali ay mébétam amiin tey soññi taalibe yëpp ñu gën a laxasaayu ndax sëñ Cheikh moom fam laxasaayoo kenn xamuloon kañ la wallaahi loo xamante ne nii maanaam ceg ndawam ba nëga ni hmm. lu mu mas a liggéey jox na ko waajuram wu tedd hmm. te mës a wàcc ndigalam fu mu a yendu moo ko fa yendal fu mu a fanaan moo ko fanaanal te ba nga ni si tey la gën a takk laxasaayam kon taalibe yëpp war nañoo xam loolu gën a faw waat jàppale ko ci liggéey boobu kon boog ñu ngi sant bu baax a baax sëñ Moustapha Diop tamit mi ngi sant ñu ngi koy sant bu baax ndax bis bi da koo fonk lool ndax sëñ Saliou am na lu mu def ci moom lu bari sëñ Saliou tamit am na cofeel gu ma aman ci moom loo mm-hmm. xamante ni ñu ñi ne woon ak sëñ Saliou xam nañu ko am na wëllëre tamit yu yàgg yoo xamante ni sëñ Saliou seq na ko ak ay maamam waaye yooyu yëpp nag moom téye na ko te jàpp na ko ndax bis bi da koo ñor bu desee ay weer day soññ ñëpp loolu du guddi du bëccëgal ngir ngir ngir ngir ngir di leen fàttali bis bi kon wëllëre bi yëpp yi nga xamante ni jàpp nañ ci tamit moom nee na nañ ko santal alaaji sëñ Moustapha Seck doomi alaaji Moustapha Seck mm-hmm. ndax nee bis bi mm-hmm. da koo bokk moom jàppale ko ci jàppale ko wér a wér a wér mhm. kon boog daal ñi ngi wax nag jërëjëf comme li ñu waxaan léegi rek ndaw ñi daal nañ xam ne mhm. sëñ Saliou moom lim doon def ci ndaw ñi suñ borom fay na ko mhm. ndax ku gis ñi nga xamante ne nii noonu la ndaw ñi jubloo ñi nga xam ne xaman nañ ko xamuñu ko ak barabam bii nga xamante ne nii fa la tëdd nañ koy def guddeeg bëccëg ndeysaan ndeysaan kon suñ borom la mu wax ne du ma nax kenn wallaahi kenn ku ne xam ne ne suñ borom moom suñ borom moom naxu ko wallaahi kon boog nag waaye nag lam daa wax ndaw ñi nga xamante ne sañ abi bu jëm yi moo ma ko gën a xam daraan togg aw ñam wu bëri neex lool lépp nekk ci mu noppi onze heures ci bëccëg waaye sëñ Sall da koy teg ne ci ay taabal gone yi di xool ñam bi ndeysaan ndeysaan mu toog dina ci ay lawraatam ne ci alxuraanam ba ginnaaw tàkkusaan ba timis hmm. mu door a santaane ngi jox leen ñam wi boobu lan la ki ñu ba nga seen àdduna ndaw la dañ ko tàmbaloon di jàngal hmm. ba nga yàkkamti kon boog ndaw ñi nañ xam ne suñ suñ saali dara wax ne hmm. jamono du léegi la naqari naqari woon na bu yàgg nee na sëñ Moustapha Saliou doomam ca njaareem am na fa tiis boo xamante ni dafa demoon ci bitigum naar jënd ko fa mhm. ba ke déwén sa mu bëggaat tiis yi ba nee na mu ne daw dem ca naar ba yal di ñaan naan yal naa fa naa fa fekk tiisi ba ndeysaan nee na naar ba ne koy meetar ba nga ci xotti ban daaw tiisi baa nga ne boobaag léegi kenn laalatu ci dara kon xam nga ne booba kon jabara neexul kon mbokk bu ñu demee ba tey ni ni ni nii xéewal yi li mu bëree ñu naan ñu naan jamono daan naqari hmm. booba dañuy dañuy font rek sëñ Sall ci booba mooma nett li ci làmmiñu boppam nee na dem na Ndakaaru hmm. am fa ay weer yaakaar naa booba xam naa ñoom sanga bi bu jóob ko taxara jóg ndax nee na booba daaree ca sowu ba hmm. maanaam ngir toppatoo fa ab dund waaye nee na am na fa ab diir ay saako yu sumul la fa jële maa la wax de ay sumul nee na bi mu ñëwee bi ñu joxe ñu ñu lekk sumul ba mhm. xotti tiis yeeñ saako ñu mu def ko ay mbubb ñu dongee sol ko fukki mbubb ak ñaar mi ngi noonu keroog ba ma koy ba ba may nettali loolu boobu dañ koo ñawal fukki junni mbubb ak ñaar macha allah indil ko ko jóoral ko ci kanam wallahi xelam dem ci loolu wallahi ma ko nettali wallahi kon nga kenn ku ne xam na suñ borom moom kenn kenn du yàkkamti ñoo noo nag ñoo ngi nag ni ñu melan ñun tamit bu ñu leen bëggee bëgg roy ci ñoom dañoo war a jaar tamit ci seen yooyu ci seen seen melo yooyu ak seen jàngale yooyu di góorgóorlu nag macha allah te bëggee yàkkamti asalaamaaleykum sëñ Habib Diop tamit daaraam ji moom kon nag ñu ngi ciy songi ñun suñ bopp di ci songi taalibe yi yëpp ndeysaan ndeysaan ndax kan mooy def daara mhm. ñu ne sëñ Habib Diop moom sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana wallaahi loolu rek lool rek doy na taalibe bu nekk sonn ci wallaahi wallaahi waaye sëñ Habib ak ni mu demee ak sëñ Saliou Mbacke mhm, sëñ mhm. Saliou Mbacke mi yóbbante bi mooy mujjee yóbbante ci moom moo ko nettali boppam léegi. Mm-hmm. Mm-hmm. ñaar yooyu la ma wax. boo demee ne ko maa ngi koy dëkk jàkka ja ak daara ja kon boo kon moom maa ngi ci dénkaanam boobu ba tey kon boog ñun ñëpp nañ ci nañ ci nañ ci nañ ci ñaan nañ ci jàpp ba ni mu ko bëggee suñu borom defal ko ci lu kawee njortam asalaamaaleykum wa rahmatullahi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëriñ Souhaïbou yal na yàlla mottali say yéene yow itam eh, wax dëgg yàlla yéenam naka jekk daa rafet Euh, li nekk ci xelam bu ko yàlla di def moom yaakaar naa kon lu bari dana weesu fii ñu ngi koy santaat di ko gën a mat bu baax ci teewaay bi ndax ñu bari namoon nañ la waaye teewaay bi jur na lu bari wax dëgg yàlla kon sëriñ Jili Busa moom euh, tubaarkàlla euh, ñu jox ko mu yëkkati ay kàddu yi itam xam naa na nekk soññee mu gën a ñu gën xam fu ñuy tegaat suñu tàgg incha allah bisimilah si Abdul Xaadir asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu bokk yëpp di sant bu baax di am mbégte bu baax ci fekk jataay bii nga xam ne jataayu suñ Saaliw la yàlla dogal itam bi ma ñëwee dégg waxtaan yi ma am ci loo xam ne mënu ma koo ñàkk a ci sëñ Saaliw muy ñaari yëf muy jumaa yi suñu sang bi wax léegi ak wàllu alxuraan ji nga xam ne itam mu ngi ci woon bu dee ci wàllu jumaa yi yàlla dafa dogal man ma yor jumaa joo xam ne moom mokk liggéey ba mu àgg mu wax sëñ Fallum sëñ Abdou Khadir jox mu wax ma jox ma ndigal ci ma yor jumaa ji di ko taxawee mu jumaa ji nekk ndaamaatu ci wetu kër Madické euh, jumaa jooju mu ngi ubbi woon 2004 ba léegi nii maa ko yor ci ndigalam laa ko yore woon ba jumaa ji àggee rek la la ma ko jox ma yor ko. bu defee nag kon day mel ni li mu doon wax ci jumaa yi loolu damay euh, firndeel rek euh, jumaa yi ni nga xamee ne noonu la ko yaatale ci gannaawam ndax bokk na ci li ci gën a am solo sax jumaa ju ne day wax ne nañ fay julli iid itam ndax bu fekkonte ni bii àjjuma rek lañ fay julli dañ fa julli julli iid dëkk bi dana gën a xat waaye lépp la boole woon joxe ndigal bañ ba ñuy def lépp bu dee ci wàllu alxuraan gi itam yàlla dafa dogal mu liggéeyal ci seexul xadim liggéey boo xam ne bii yaakaar naa ne ñi ko ci am bariwul euh, bokk na ci ay jamonoom xam nga daan nañ am benn bis rek boo xam ne day woote ci këram ñu wàcc fa ay ñetti téeméer ak fukk ci benn bis loolu yaakaar naa nekkul lu yomb loo xam ne e, tey ci moom lañ ko njëkk a gis yaakaar naa moo jëmut mu amaat beneen cër boo xam ne bi itam bu rëy la boo xam ne bi yàlla dogal na bi nga xamee ne e, aj màkk dafa jege ma war a bokkoon si ñuy dem booba ñëw naa ba tàggu ko ñaanoon na ba mu demee màkk ci at moomu ci la wàcc waaye ma mu am fa loo xam ne lu yéeme la ndax Euh, keroog bi mu wàccee ci bis bi ñu ko yégee dajaloo nañ fa wàccal ko kaamil ba altine ji ñëwee ñu di ko ñaanal ñu dajalowaat wàccal ko ay kaamil moo tax mu am benn marché bu ma ko defal boo xam ne bii maa ngi ciy wax ne euh, alxuraan day ndi yàgg na fee bàyyi ko ñu ñaanal ko jàngal ko ko waaye jàngal alxuraan nag fi nga xam ne fi la alxuraan wàcce koo xam ne dafay bàyyi ko yaakaar naa loolu ci moom la njëkkee fi alxuraan wàcce ñu jàngale ko fa alxuraan waaw loolu mooy yaakaar naa ci moom la jëkk euh, marché boobu maa ngi ko tàmbalee woon ci kaw kabun aafilun am xamalun afara afala kalla waqat afalat shamsu duha badala bada ak bada ka an sulsilat ardun bi rummatiha lamma na an naasa naain ashadal fudala bal rujatil ardu rujan fi mashaariqiha kasaami xaaribiha salil hujaaja ala ndax toog fan ba xat kuntu bin bay niim ay yaamaha wala sa falay sa alim bi shay in misla man jahila kon loolu ba tey wax dëgg yàlla mu doon koo xam ne kii daal wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla fayal ngeen ji fay ci dara daraje Seexul ne waaye doon na koo xam ne ku jamono teeg moom ku ne rek maanaam am na loo jëlee ci moom loo xam ne doy na la àdduna ak alaxira waaw kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu suñu Moustapha itam di nuyu mbooloom yëpp di li ba baal waax ñëpp leen baal waax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kon mbokk yi santaat nañ bu baax a baax a baax ci teewaay bi niñ ko waxee ci njëlbeen di santaat bu baax itam sama conseil bi mu fekk moom itam di ko xam ne kenn la ci man maa ngi koy ñaanal te di ko ñaanlul sañ naa ko ndax nit ki bu lay conseillé di la jox ay yére yu rafet nga di ko sol saa bu bëggee ku la gis xam ne kat sëriñ bi dimbali na la kooku mun sañoon ñëpp ñaanalal ñu ko Euh, bëggul sax ko wax turam waaye na mii ci jataay bi ñu ngi ñaan suñu borom jàppale ko dolli ko toofeex bu baax ci barkeb sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim santaat bu baax sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Souhaïbou moom sawar naa lool ci tudd ko wax dëgg yàlla seen son moom man wax dëgg yàlla dama ko sant dafa am bis mu jóge ci sëriñ Saliou ñëw ci kër sëñ Souhaïbou boobu sëñ bi damaa jox sëñ Souhaïbou ma fay jàng ci laat jaxate waaye sëñ bi daa am bis mu ñëw daan ne laat ana sëñ Afe ka ñu wax sëñ Afe mu daal di may woo ma dikk mu ne ko sëñ Afe ngi nii mu ne ma sëñ bi dem moo ma naa ko jàppale ba mu bañeetu mu rànke sëñ bi samata wax li sëñ sëñ la sëñ bi la jaxate wallahi la euh, kon nag damaa bëggoon a xàmmee ba jàppale ko mu bañeetu ci kër gi keroog bi mu waxee loolu bis boobu ci biir néegam laa fanaan sëriñ Abibou <coughs> Diop tey jii day imam ci lu wér donn na baayam taroy Cheikh Saalihu ci dëggal ndigal la mooy jàng ak jàngale ak di liggéey te loolu la ci loolu la sax dàkk moom mi moo ko dolli ndimbal sëriñ bi daana wax ne ndigal ak ndimbal ñoo bokk benn néeg bu ñu fanaan kon ndigal bu xasee ñëw rek ndimbal moo ci topp kon nag jaajëf sëriñ seex sa wax ji doy na koy wut a xam dalil yi leer na sëriñ seex juuf imam wéyalal sëriñ bu mu sëñ moor mbay waxam ji rafet tegtal la ay waxam leer na wér na yaay ma wax jërëjëf thank you wa merci beaucoup sukran jaziran jasakallahu jar ngeen ko wasalaamu aleykum wa wa barakatuh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 Sénégal gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. ah am lépp tawfeex ci sëriñ bi mën a may. gën noo gàtt noo tawfeex ci sëriñ bi.